abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk yu wér te ci réew mi ak ci bitim mën nga analyser lu ne. Mhm. mën nga def ay pré mën nga def prévision yu ne. Mhm. mais am na loo xamante ni mënoo ko analyser. am na loo xamante ni mënoo ci def prévision. Mhm. mooy bu lii amee lan mooy nekk la réaction des Sénégalais. lan mooy nekk la réaction de Sénégalais. parce que ñoom ci seeni euh, euh, calcul normalement normalement instant yi nga xamante nii ñu ngi préparer élection pour deux mille vingt quatre Idriss Seck dafa waroon a féete côté ne candidat la dugg na bennoo mais génnaat na hmm? Karim Wade féete côté bële Macky Sall ak waa Benno xool nu ñuy demee ñoom élection normalement puisque en deux mille vingt et ci lañu pouvoir bi pare woon pour pare ci ak Ousmane Sonko te loolu ba muy am ñoom bañ koy bañ koy bañ koy nas a un moment donné nee naa Macky moom entre guillemets moo créer Ousmane Sonko te ñoom loolu il long fait exprès maanaam ils l'ont fait exprès ils <laughs> maanaam euh, euh, da nga téye sa benn manque di ko ëf ëf ko ëf ko ëf ko ëf ko muy gën a ngand parce que jàpp nga ne saa yu ma neexee mun naa jël puso na ko cuuc mu bën <laughs> je sais pas donc comprendre nga koy manque di ko manque parce que yaakaar jàpp nga ne pour nga dégonfler ko. day yomb du jafe. 2016 euh, ba le président Macky Sall di raje Ousmane ko ba 2017 ba 2019 pouvoir bi dafa acharné wu à un moment donné doo sax comprendre ci kaw Ousmane Sonko ba ñu naan mais <laughs> quelque part ñii lan mooy seeni intention Pastef bi nga xamante nii bi Macky di wax ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression amagul woon ñu dem ba à un moment donné pouvoir bi yëpp braqué wu ci kaw loolu le président Macky Sall xam na woon xamoon na ne su ko defee Ousmane Sonko day gën a jël en volume nu mu ko rajee bokk na ci li ko gën a lancé bul fàtte ne en deux mille seize lañ ko rajee deux mille dix-sept pratiquement euh, Ousmane Sonko euh, plus fort la mais député. mu mais ñu ñu topp ko. teg boo xamante ne nii euh, comment dire deux mille dix neuf ba muy dem di présenté wu déjà amoon na benn envergure nationale ba parce que ñoom jàppoon nañu ne après élection yooyu dinañu mën a créer benn dossier boo xamante ni on va en finir définitivement avec Sonko léegi nag ñoom ñu continuer de sorte que boo ñëwee ci ab débat télévisé mm-hmm. ki nga fay fekk réew mi lay bokk wala PDS wala APR wala ku jóge ci parti yooyu léegi su ko defee pendant six mois ñu waxtaan ñu créé benn affaire ci euh, Idrissa Seck sénégalais yi nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci pendant des mois suñ ci paree ñu jël beneen dossier Macky Sall wala ku jóge ci moom ñu nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci pendant six mois buñ ci paree Karim Wade maanaam ñu nekk ci benn. cercle ci benn cercle <laughs> boo boo xamante ni dañuy tourner en rond de sorte que le véritables problème des Sénégalais kenn du ci wax les véritables problèmes des Sénégalais kenn du ci wax te xam nga eh, maa ngi dégg démb <laughs> Moustapha mu di ko rappeler ci live am bi en 2007 en 2007. ci la Idrissa sec gënoon a am plus de chance. nekk président que instant yi nga xamante ne nii pratiquement mun nañu wax ne il est au passé. waaw il était deuxième de présidentielle 2007. il était moo tax ma ne. ci la ëppee woon <laughs> xam nga moo tax ma ne. ci euh, wàll wi ñu jagleel Idriss Seck ci triangle boobu walla bi ñu jagleel Idriss Seck nekkul moom mu accéder au pouvoir. maanaam ah, rôle perturbateur dañ ko nar a jox. rôle ko joxee woon en 2019 rôle boobu xam nga li la koy gën a woon mooy que Idriss Seck indil nañ ko les chantiers de Thiès mbambu topp ko ñu yóbbu ko prison. muy gën a populaire di gën a populaire Idrissa Seck génn prison présente ne day présenté wu élection ñu bëri jàpp ne élection yi moom Abdoulaye Wade xalaatu koo gagné deuxième tour premier tour li mu mën a def mooy yóbbu ko deuxième tour te ñëpp dañuy dem ànd ak l'opposant Idrissa Seck ci dynamique boobu la nekkoon mu bàyyi ba des <laughs> visites nocturnes. bu <laughs> bàyyi bañ ne une semaine moo des ci élection yi. sëriñ moo ko. da ngay imaginer tey da ngay imaginer tey. Sonko Ousmane Sonko <laughs> sénégalais yi yeewu suba xëy dégg ko xëy suba gis ko mu taxaw ak benn sëriñ Macky Sall taxaw nii moom mu taxaw nii. ñu ne waxtaan nañ ba déggoo. xam nga rek idi tamit daa am kilifa xam nga sa sëriñ. <laughs> non non non du kasoolu kilifa de. <laughs> ah nee na waaw moom lu mu wax rek laa wax nee na sëriñ ña ma ko ne woon jamono jooju. waaw non sëriñ ñi la ñuy mbubboo souvent. Eh, président Macky Sall yaa ngi koy dégg mu ne. sëriñ ñi dañoo soog. en 2012. bi conseil constitutionnel ne validé na candidature Macky Sall ndigalu sëñ bi la topp moo tax mu dem campagne. <laughs> te bu fekkee juste dañ naan il faut il faut être républicain. Mango ba ñuy def seen i yi fii également Masaalikul Jinaan gis nga rôle bi ci Mara yi mm, joué mais dans tous les cas ñoom seeni pexe bu ñu demee ba xëcc xëcc tirer le bouchon maanaam. Euh, tirer sur la corde ba mu commencé dëgër këcc. réfugié wu ci ginnaaw sëriñ pour ñu mën a retourner en arrière. Mm-hmm. il faut que ñu mbubboo sëriñ yi. Mm-hmm. Idriss Seck 2007 boobu c'est ce qu'il avait fait mais yemu ci yemu ci puisque non seulement dafa bàyyi bañ ne une semaine moo des ci élection yi mu dem seeti Ablaye Wade mais bi élection bi ñu joxee résultat yi bi ñu joxee résultat yi Ablaye Wade ne am na cinquante six pour cent des suffrages ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niass ñoom ñu jox leen ay cinq ak six ñu ne loolu c'est impossible <laughs> élection yi jaarul yoon dañuy dem déposer ji conseil constitutionnel pour def recours ci saa si lay Idrissa Seck jël téléphone am woo Abdoulaye Wade félicité ko ba pare siiwal coup de fil bi <laughs> c'est que dafay mel ni scénario bi répété en deux mille dix neuf loolu moo amoon am recours mais exactement deux mille dix neuf deux mille dix neuf man xaw ma euh, ban rôle la ci joué mais je suis persuadé que ne bu ñoom Sonko déposé wul recours c'est parce que dañoo déglu Idi. non boobu fekk na mi ngi doon waxtaan ak waa ji ndax nee na ñu ngi waxtaan depuis 15 mois. <laughs> waaw après loolu la gëm loolu <laughs> te am na yeneen sax yu gën a garaaw ci biir parce que yow bu ñu nee ne ab parti politique dem na élection wala coalition dem na élection mais ki nga xamante ne nii moom mooy gérer recensement au vote parti boobu coalition boobu kooku ñu ne bi élection yi di eh, bi ñu nee suba la. ak ba biñ euh, jour vote bi la ba le lendemain kooku il a disparu <laughs> kenn gisu ko donc pour diir que ñoom li ñuy def ñoom li ñuy def daf leen leer ba leer ba xam nañu ko lu ñu manœuvrer déjà bind ko teg la. benn scénario bi bind di ko déroulé. ma ngoog léegi li nga xamante nii moom moo euh, euh, faussé seeni calcul. maanaam mooy la réaction di peuple sénégalais li ma la waxoon. sànq ne kenn mënu ko calculer. xëy na mën nga def say pexe mën nga comme ni ko euh, euh, euh, président xalaate woon dernièrement ne da ngay def ay xawma rencontre avec les jeunes créer xëyu ndaw ñi def say affaire ay taf yëngal yooyu. Mm-hmm. mais en réalité les les populations. la euh, jeunesse ni ñuy réagir kenn mënu ko xam. mars deux mille vingt et un bu nekkuloon jeunesse boobu réaction bu mu am tey Ousmane ko kenn waxatul ay wala bu ñuy wax ay waxam tamit du doon ay naka lay bokkee élection présidentielle deux mille vingt quatre mm-hmm. donc taxan ñoo nañ ko ba féetale ko boor. Mm-hmm. léegi nag euh, bu nekkee ne. deux mille vingt et boobu nga xamante ne nii ci ñoom lañu ci lañ décidé woon ne ci la ñuy jël puso bënn bal bi bi nga xamante ni ñoom pompe nañu ko sénégalais yi xëpp ci kaani yi ne loolu du am mu dem sax ba avant muy am ma ne Idrissa Seck mi nga xamante ne nii dafa naroon a nekk dafa waroon a gérer benn pôle maanaam bu ñu nee triangle. moo yoroon benn el bi mu dem ba fekk ji Macky Sall parce que jàpp nañu ne Ousmane Sonko mii kat pour wàccee ko. il faut il faut que ñu def bloc comment. te soo seetloo communiqué ba ci Abdoulaye Wade di génnee di naan Macky Sall dafa profiter ci ay imperfection wu opposant hmm? ba mu koy wax da ngay xam ne ñii ni <laughs> euh, comment dire. faruñu ak ab Macky Sall comme ni Idriss Seck demee ak moom mais li ñuy def Ousmane Sonko naqariwu leen su Abdoulaye Wade demee ba justifier ko noonu que Macky Sall dafa profité ci ay faiblesse su opposant d' accord est ce que en quelque sorte mënuñu wax ne ils l'ont nekk ni euh, xaw gis dëgg bañ ko kii mën nañu wax ni parti parce que jamono ji nii vivre ay moyens difficiles xaw na affaibli bu baax a baax. waaw xam nga xam nga euh, kii soxna Hadj Sylla